asalaamaaleykum gars yi vidéo tey bi dama leen di wax nan ngeen di sauvegarder seen photo ak seen vidéo yi nekk seen téléphone ci seen compte Google maanaam nan ngay sauvegarder sa photo yi nekk sa téléphone ak sa ay comme boo changé beneen téléphone da dugal sa compte récupérer waat sa photo ak sa vidéo yi nekkoon ci sa ancien téléphone bi yépp ci sa téléphone bu bees bi loolu nag benn application moo koy def application mi ngi tudd Google Photo disponible na ci iPhone ak ci Android application bi boo demee Play Store da ngay tapé Google Photo moo nekk nii pour ñi ko amagul boo tapé Google Photo application bi nii la mel di commencé bul fàtte abonné activer cloche bi partager vidéo bi pour chaîne bi gën a am doole tamit bul fàtte like vidéo bi lu am solo la ci chaîne bi léegi dañuy def ouvrir léegi boo bësee ouvrir fii la lay indi boo la indee fii après nga bës autoriser te après nga def activer la sauvegarde boo bësee activer la sauvegarde après nga kose fi mu def utiliser les données mobiles quand il y a pas de wifi maanaam day utiliser données mobiles yi sa données comme ça sa connexion internet boo boo amul wifi après ñu autoriser ko bu la neexee tamit mën ngeen ko bañ a autoriser après ñu bës confirmer léegi boo bësee confirmer après dañuy dem ci bibliothèque instant bi sauvegarde gun benn photo moo tax indiwul benn photo dañuy dem bibliothèque bu demee bibliothèque affaire bële ci kaw noonu mooy indi photo yi après léegi dañuy dem ci sunu logo fële mu def sa logo sa commencement tour la koy def wala sa photo bu fekkee mës ngaa def photo ci sa compte Google léegi dañ koy bës buñ ko bësee fii mi ngi sauvegarder mu ni la sauvegarde est activée sauvegardement bi mi ngi activé wu léegi ñu xaar sauvegardement bi activé wu préparation en vue de la sauvegarde léegi ñu xaar sauvegardement bi activé wu boo dikkee tamit boo ko fekkoon activé wu da ngay bës activer la sauvegarde bu bula lay doon ci suuf noonu léegi boo ko activé ba pare ñu génn ñu xaar photo yi recherche instant bi photo yi recherche nañ léegi ñu dugg ci première album bi bu duggee ci premier album bi dañuy ba sauvegarder et synchroniser boo bësee sauvegarder et synchroniser album bi photo boo ci jot rek day sauvegarder wu automatiquement ci sa compte Google léegi boobu après ñu def sauvegarder léegi boo sauvegarder sauvegarder ba ñu dem ci beneen album boo demee ci beneen album bi tamit da ngay def sauvegarder et synchroniser. ñu demaat ci beneen album noonu ngay def album comme ça boo sauvegardé wul day def genre nees bu def benn tere ci diggante bi comme day def genre nees nii def tere ci diggante bi mooy bu ko defee sauvegardé wul léegi ñu bës ko sauvegardé ko nii léegi bu deful dara mooy sauvegardé na bu defee nees bi nii mooy sauvegardé wul sauve sauvegardé woo dara après ñu def sauvegarde sa photo ak sa vidéo yi nekk sa téléphone yëpp léegi boo changé téléphone dangay dugal sa compte rek récupérer waat photo ak vidéo yi nga sauvegarder woon ci sa compte bi léegi nga def ko ci sa dossier yëpp ci sa euh, album yëpp sauvegarder photo yëpp instant mi mi ngi recherche photo yi des na mais da ngay xaar mu recherche ko benn par benn yëpp benn ñëw ñëwandoo léegi après dañuy dem ci photo boo demee ci photo gis ngeen photo yi ñoo nekk nii léegi dañuy dem suñu logo bële ci kaw sa commencement tour wala sa photo léegi boo ko bësee gis ngeen espace de stockage associé à votre compte Google da lay may 15 giga yoo xam ni mën nga cee denc sa photo ak sa ay vidéo bu 15 giga yi jeexee da ngay jëndaat giga léegi ñu bës espace de stockage associé à votre compte léegi buñ ko bësee gis ngeen bu 15 giga yi jeexee dangay ngay bës gérer l'espace de après nga jëndaat yeneen giga gis ngeen sunu giga sunu 15 giga yi utilisé guñ ci dara 15 sur 15 léegi gis ngeen zéro utilisé 15 giga après ñu dem ci ci suuf fi mu def dossier de appareil à sauvegarder léegi boo ko bësee fii dossier bu ngeen bu ngeen kose rek day sauvegarder wu automatiquement boo kose rek day sauvegarder wu automatiquement léegi ñu commencé kose dossier yeneen xool ban dossier ngeen di kose pour boo jotee photo ci dossier boobu rek day sauvegarder wu automatiquement ci sa compte Google léegi après boo changé beneen téléphone da ngay dugalaat compte rek récupérer sa photo yi nekkoon ci compte boobu yëpp ci beneen vidéo tamit naa leen woon nan ngeen di récupérer seen ay contact maanaam nan ngay récupérer sa contact yi nekk sa téléphone comme boo changé beneen téléphone récupérer waat sa léegi ñu coché dossier yëpp ngeen mën ngeen a coché dossier yëpp bu leen neexee après ñu def retour gis ngeen yi ñoo ñëw fii après boo sauvegardé day ñëw fii automatiquement li moo nekkoon vidéo tey bi bu fekkee vidéo bi neex na la bul fàtte abonné activer cloche bi partager vidéo bi pour chaîne bi gën a am doole kon gaay ba beneen vidéo incha allah